ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir da ngeen di abonné fii a bu yorul jikkooy tan dara dana la dogalee bis. te ah, tan moom nag mu ne waaw tan tan medd rek lay dunde ah, kon da tan yàkkamtiwul. yàlla rek. tan. yàkkamtiwul dara. dogalu suñu borom rek lay xaar. te nee gone yi xaaratuñ ko duñ ko bëgg a salfaañe ba mu ñëw bëgg ko gaawam mu ne tan bu dara doon sukkuraat téeméer at Cheikh Ibrahima ne day toog ci wetam di ko xool rek. ndax rus na jëfandikoo la ko yàlla santul ndax moom ci medd lañ teg mbiram. Hmm. daan ne mu wute nag ak yéen da ngeen a yàkkamti lépp. xam nga xale yi da gis xale bu am 30 ans naan hmm. bu ko amee dox ñetti nga dégg na dee na. Cheikh Cheikh Ibrahima nee na moom pëng rek. amiin yàlla mosal ci nee naa doom da leen ñaan wërsëgu sawum gëlim. wërsëgu sawum gëlim. nee na gëlim danaan carararaar ba nga ne eh mu mel ni da koo dégg taxaw. mel na xanaa dootul saw. ba nga ne gëlim bi xanaa dootul saw. moo commencé naan car nga ne waaye daa mel damaa dégg. ne wërsëg bu demee noonu rek borom dana gudd fan. nee na moo ah. tax gëleem yàgg fi am kattan te yàgg. gaa yi na daal moo raw ñëpp laa la wax. Mm. ku dul sëñ Touba moo la raw. waaw kon gis mooy loolu arrangé wu leen ñoom. waaw kay gis moom mooy moom yuréel rek. yuréel te yuréel pëng. pëng waaw yal nañ ci lu indi lu indi waru bi ci moom. Mm-hmm. waaw kay ñu waru ci moom dafa bari. lool lool sax loolu nag danaa ci ñëw. Mm-hmm. waaye daa wax ne tan dama ko bëgg a dimbalee gone yi. Mm-hmm. ndax ñu xam ne Cheikh Ibra jeunesse bi nii. Hmm. Cheikh Ibrahima lañ leen war a jàngal bàyyi yi ñu leen di wax di leen feccloo di leen foloo. Hmm. di leen dugal ci yu leen dul jariñ dara ndax xale yi dañoo bëgg lu baax. Hmm, te boo koy wax ñu koy xam. ndax Cheikh Ibrahima dane nag gone yi roy ci tànn rek waaye tam. nee na bu toogee ba roog a rot. su ca daal di jëm. waaw. ne day wooy ay bokkam. waaw loolu teg na sama ko wax loolu ne ci àll bi xam nga. si daan ne tan day wëri ay bokkam. Hmm. daan ne doom kenn ko ne fu say bokk ne xam nga. waaw. voilà. Hmm, hmm, waaw ne day wëri ay bokkam. su wëree woo leen. woowaale kilifa bi. ne bu ñëwee du nuróog ñoom. laaf yi cet yi day weex tànk yi weex baat bi weex. mu ne mbokkam yëpp taxaw leen ne nit ku baax day am kilifa <laughs> bàyyi leen ko ba mu jëfandikoo ba noppi. waaw bu jëfandikoo ba naaw du man tam bàyyi leen ma jëfandikoo maa ko gisoon danaa nañ ko bokk. te te te laa ko gisee. waaye Cheikh Ibra nee na. Hmm. kuy def loo am say bokk duñ ci mos. Hmm. si kilifa du ci mos. Hmm. booy faatu da lay bett. te te